benn ñaawteef bu doy waar bu ñu nemmeeku ci diggante Touba ak Njaareem mu di benn waajur bu góor bu tëddee doomam bu jigéen ci lu tollook ñetti yoon ba xale ba jëlee sa ëmb andi nañ ci ay leeral. xale bi dafa nekk ak Touba yaayam doom ji nga xam ne moom lay boot am ndoxum siti bu metti mel ni kon soodee ba pare mu nekk en état grossesse mu nekk Touba ba affaire bi dépassé ko mu ñëw Diourbel ànd ak jëkkëram mu ñëw indi ko hôpital Diourbel di dispensé si di gisee ko hospitalisé woon. génn dem ba ko fa jaaratu fa ma dem fa ñu yëgal ma ko ma dem seeti xale bi jël ay responsabilité ci moom di jënd ordonnance yi di ko faj ñu koy traité di ko traité ba sage-femme yi ne ma xanaa amul ku mën a ñëw relever yaayam fii pour jël xale bi nga xam ne moo feebar ndax yaayam dafa nekk jigéen wéru te sori na parce que kii bu juddoo fekk kii mel ni mën na ko wàll ma ne leen an ma magam bu am na taawam mi ngi Tuubaa war naa am 15 ans ñu ne ma kooku fexe pour mu ñëw pour fii ci dispensaire bu ko defee yaayam ñibbi ci sa kër ba xale bi ba di ko dimbale ba jabar ñoom ñaar seen i jafe-jafe weesuwul xale bee ko faj fajul xale bi fajul yaay xale bi te man maa ngi moom ñoo bokk bàyyi yaayam dafa gaañu sama papa ma jël ko en charge ma def le maximum gérer ko léegi ma defee lu tout tout tout nu wuta indi xale bu jigéen bi ma woo ki nga xam ne nii moo bàyyi ma bokk ndey ak bàyyi moo jur sama deuxième femme ma wax ko ne ko nee ko na indi mati fii ci sama kër mu dem remplacer yaayam dispensaire yaayam ñëw fii ci kër gi ndax docteur yi nee na ñoom ñaar waruñu mën a bokk benn saal bi ëmb bii mu ëmb su ko boole yor ku feebar ki bu kii juddoo mën na ko wàll papam boobu daal koy woo wax ko ko mu ne amul ko sax bopp ci kaw suuf ko mën a tax sama doom ñëw foofu léegi nag par la si ndekete moom lii mu def tey jii moom intention boobu la ci amoon mu tëdd xale ba guddi loolu la xale bi nettali noonu la def moom ba tëdd ko lu ma trois fois fara mu jaar ci ëmb ndeke saa bu koy def ak moom day yor paaka jël buum yi yeew ko na ko boo yuuxoo ma la ba tey si kàddu nijaayam famille bi benn la waaye gis na si ay complice yu doy waar bay tëj gémmiñam ngir mu bañ a àddu ci mbir mi. ay bokk lan parce que baayam bi ko jur ak sa ki jur sama baay man ay doomi ndey lan waaw. ñaari famille am na ci ñoo ne ay complice lan man xam naa leen ñoom ñoo ko nëbb moom dafa def pare daw ñu ànd ak moom ci daw gi di ko nëbb ñii ñu ngi naan nan dem wëri mystique pour tëj sama gémmiñ man ba du ma a wax ci chaîne dara ma wax leen ne leen par la suite sax man li bokk bokk moom baay xale bu jigéen bi am na ñoo xam ne ñoo ay doomi ndey ñoom ñoom dañu ma cee dagaas sax far na ñoom seen responsabilité bopp ñoom ñoo ko jël ñoo ciy def lu ci war a am. sur le plan psychologie pare nañ ngir wutal xale bi ay ñaan ngir mu génn ci jafe-jafe bi muy dund. waaw ah, man maa ngi koy wutlu ay ñaan pour xelam des parce que boo ko xoolee pour le moment dafa mel ni ku xaw a absenté mm-hmm. parce que affaire daf ko naqari pour mu wax sax wax ju àgg mënu ko jooy lay def guddeeg bëccëg suba ngoon mm-hmm. dèjà sëy bi moom l'islam tas na ko mm-hmm. moom bu ko mayee baat yaay xale bi l'islam tas na ko bu ko mayee baat l'islam tas na ko tox cigara sax du ko def maa ko yar xam naa ko bu baax ki mu bokkal benn seen ñaari bay bokk ndey seen ñaari baay bokk ndey ak baay moo mooy sama ñaareel bi soxna mi ngi nii ci sama kër fekk nga ko fa waaw lu tux sax si yar xam naa bu baax euh. nit ku la boo xam ne boo xoolee innocent la di nit ku vulgaire kanam gu indi sa boo ko gisee ni la ku ñuul ñëpp mbokk ndeyam baayam ak i bokkam a mbokki ndeyam ak ñëpp xam nañ moo def ñaaw téef bi parce que moo tax mu daw ku deful dara doo daw waaw moo dafa daw mais daw googu mu daw mënul tax mu daw xanaa su mu génn sana mbaa mu dugg bàmmeel waaw loolu moom nañ ko xam waajuru xale bu jigéen bi moom it indi na ay leeral si mbir mi. de moom affaire bi ni mu demee moom dama ñëw nekk fi yor sama doom mu feebar ma koy faj saa mag bi ne ko indi ko ñëpp ne indi ko mu lànk ne du ko indi ma ne ko kon bàyyi leen ko bu nee na ku ko woo du ko indi ku ko woo si yoon mu ñëw mu la. ñu ne ko waa nan ko bàyyi nan ko bàyyi foofa ba xam ndax xelam xalaatul lool ñu daal koy bàyyi ma ñëw toog daal sama mag bi waajal ma ma daal ñibbi bi ma ñibbee ba pare nag. la si affaire bi def nii ma ne ko waa lan la mu ne ma du dara ma ne ko ah kon baax na ñu daal di bàyyi noonu toogaat ay fan yi néew sama mag bi daal di ànd ak moom na ko nan dem ñu xool la ba xam bi ñu demee bi ko médecin bi xoolee ne test bi dama kaa indi waaye moo ko indi ñu seet ko waaye subaa bi may wàcc altine ji dinaa indi test bi après bi mu xoolee test bi ba pare ne kii daa tollu diggante mu ñëw ah yi fi de moom yaa ñoo ko gisandoo ma ak yow papaam toog di ñëw ma laaj papaam papaam nag moom wax ñu benn xalaat waxuñu dara ñu daal bàyyi noonu ci biir. waajuram bi ko jur si géñoom takk ko ba dëgër egg si kawam ba mu jëlee sa ëmb yaayam ji xamle na ni dëful dara jotu ko lu mu tey la. mu sedd léegi nag sama benn dëkkandoo ñëw dugg si biir néeg bi daal di koy laaj mu daal di koy expliquer lépp ni mu demee wax ko lépp ne ma sam papa danaa tëdd ak moom ba guddi. mu jël ay ay negenaa ay ay darab ñoo ko sama gémmiñ gi daal jël buum daal di may takk ba ma dëgër mu ne ma lii nga may def de xaru sax moom ma ko gënal papa ndax lii moom bëgguma ko mu daal di jël paaka bi daal di koy teg si bëli gi waaw mu tegee paaka bi si bëli gi nag xam naa si la ko defee lii waaw. ànd naa xelam bu baax dara dalu ko tuxut mandiwut naanut lawuti doom lu mu def moo ko tayaatoo ndax xam na ne doomam la di taaw mu dagg si butitam moo ko tey. yëg na ko yëg na ko yëg na ko yëg na ko bu baax ndax bu ko yëgutoon du daw yëg na ko sarax la ñëwoon Jurbel si kër nijaayam ba mu déggee coow li la daat daat daw dem kenn xamut fa mu dem na kenn gisu ko dem nañ këram fa sama dooyu mag dem na këram dem na fa gisu ko dem nañ marché kenn gisu ko dafa daw daa daw dem kenn gisu ko nekkut këram nekkut palaasam kenn xamut fa mu dem kenn gisu ko kenn xamut fa mu dem ba ñaawteef bi amee ba tey tax na ñu ñàkk kër gi ñu dëkkee woon saafara rek jàpp rek tëj si kaso bi rek mu dee loolu rek laa si soxla waaw tëj ba mu dee rek ñu suuli koñ bi yëg nañ ko ndax kër gaa ngay toj kër gaa ngay riin sëñ kër gan nu mayoon sëñ ba nangu na ko léegi lan ma wane ma kër gaa ngi nii sëñ bi da nangu ñëpp a ngi daanu nangu nan ko waaw mbir mi kay ni mu ko dundee naqari na ko trap bu sañoon ba nii de de xaru na waaye nag lépp mbiru sunu boroom la waaw naqari na ko trop man mi ko jurit mitti na ma mitti na samay mbokk waaye daw moom taxut a raw taxut a ko jàpp bu baax buñ ko jàppee si kaso bi lay deewee ma baalewu ma saraxewu ma ndeyu mbili gi yëf yi dal mu ngi yëkkati ay kàddu di dëggal ne waajuram bii moo ko tëddee. sama papa moo ma def ma ko wax ma dem sama yaay la nangoo téléphone ba ma may tëddee ma bañ mu daal di ne ma boo bañee naa la dóor ba rey la wala ma yeew la ma daal ne ko nga rey ma sax moomu ko gën mu ne ma duma wax nga wax dangay nopp. ma daal mu daal may dóor def ma ko. ba tey si ay kàddoom mu ngi ko tëddee lu tolloo ko ñetti yoon ba dikkaat na si anam bi nga ko doon defee. waaw si ma yeewe dóor def. dóor ma koy mm. daan na dem sax ba di ko làmbaatu guddi gi bu ma saana tëdd ak yaayam. su tëddaan sama yaay tam léeg-léeg daan jug sax di ma làmb te yuux sama yaay naan lan la ma ne ko dara. mu di naqar bu metti di ab ñaawteef ci xale bu am fukki at ak juróom waa juróom bu góor egg ci kawam ñetti yoon ba ëmbal ko ba noppi daal di daw ba tax rekk famille bi di ñaan yoon rekk daldi di def liggéeyam ndax dafa metti ëmb doom joo bokkal benn baay.